première dame bu Sénégal madame Marème Sall ak première dame bu Turquie madame Erdogan ñëw saafonteeg waa Gindi ñëw tamit xool li fi coopération turque jot a def ñoom ñu daal di génnee juróom-ñeent fukki millions ci sunuy koppar jëndee ko ay jumtukaay yu jëm rek ci barab bi nga xam ne fii lañuy fajee xale yi yokk tamit jumtukaay fi nga xam ne fii la ñuy tëdd fi ñuy wuyoo tamit yokk nañ téléphone yi. lii lépp rek ngir gën a jàppale xale yi nga xam ne dañoo réer xale yi nga xam ne tamit amatuñ fuñ jëm walla ñi nga xam ne dañoo dawee seen kër fii première dame yi def nañ fi rek lu ëpp waxtu jóge fii nag wuta lii marché Kermel ci village artisanal bi artisan yi wane fa tamit seen mën-mën seeni tableau ak seeni objet d'art neex madame Erdogan mi ci jënd yu bari visite bi ñu daldi ko jeexalee ci ay rek couturier yu mag li bokk ci ni première dame bu Sénégal madame Marième Sall di dalalee ay ganam won leen liggéey bu rafet bi ñuy def ci réew mi waaye it solal leen laata rek muy tàggatu. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi ngeen di jot moo leen vidéo boo xam ne